cérémonie bi directeur général impôt et domaine Bassirou Samba Niass moo ko waroon présider euh, yàlla dogal bi ñu ñëwee Mbour ñu waroon continuer Thiès mu am benn euh, empêchement de dernière minute boo xamante ne euh, moo tax ñëw fi te obligé mu relier Dakar directement parce que dafa amoon benn cas urgent bi mu waroon gérer foofu mais heure bi nii wax dëgg yàlla waroon na fi teew mu nekk ak ñun euh, tatagal leen bu baax a baax a baax ndax lii nii moo ko moom euh, loolu yàlla dogal moo tax ñu représenté ko fii euh, wax na ci je pense que dinaa si ñëwaat tuuti président de république tey jii dafa innové mu jël benn décision boo xamante ne bu ama am am solo euh, loi 2017 31 du 15 juillet 2017 euh, euh, portant transformation des permis d'occuper et autres titres similaires en titres fonciers directs je pense que Diop wax na ko titre foncier nekkul lu ndaw nekkul caaxaan di nga dund ba am cent ans sax xëy doo am titre foncier buñ la waxee fi nga war a jaar ak procédure yi nga war a jaar ak sa dossier fu mu war a jaar ba nga am titre foncier ba ñu ko waxee rek da ngay découragé tellement que dafa yàgg mën nga déposer sa dossier bu njëkk ba pendant presque dix ans vingt ans doo am titre foncier président nag ak euh, mbaaxam wax dëgg yàlla ak euh, yërmandeem ak xam sénégal yi bëgg leen dimbali moo tax mu jël loi bi ma wax sànq la loi 2017 ñu yóbbu ko assemblée nationale. bu ñu ko yóbbee assemblée effectivement assemblée voté ko mu jël décret bi en 2018 mu jëmmal ko bu baax permettre wax dëgg yàlla Sénégalais yi ñu mu am titre foncier parce que ñun ñëpp ay citoyens lañu. dafa am lu ñu wax euh, l'égalité des citoyens parce que constitution bi moo ko moo ko consacré ñun ñëpp dañoo war a am am nañu droit am titre foncier parce que bu njëkk ba borom barke yi ak borom àll yi rek ñoo ko doon am léegi nag président dàq loolu yëpp permettre na ne tey euh, même ñi amul mooy wax dëgg yàlla ñu mën accéder euh, à la pleine propriété donc loolu lu ñu saluer la li ñu rafetlu la. ñun nag au niveau de Thiès yàlla dimbali ñu aussi ñu bokk ci euh, centre yoo xamante ne ci Sénégal ñu njëkk créer titre foncier yooyu ñu dañ koy sant yàlla di vraiment remercier aussi suñu autorité yi ndax aussi ñoom ñoo ko diligenté ñu jàppal si liggéey bi bu baax di remercier également agent yi ndax euh, euh, ñoom tamit kenn demul ñu des ñoom ñoo def liggéey bi macha allah ñu dem sur le terrain euh, waa cadastre tuur naa ko sànq domaine ñoom ñëpp wax dëgg yàlla jàpp nañ ci ba ñu créé tey ay titre foncier ñu war ñu wax ko remettre léegi-léegi incha allah borom yi je pense que ñoom aussi dinañu recueillir certainement seen impression ci loi ci dégg ci euh, décision bi boo xamante ne am nañu ay titre foncier titre foncier dama koy rappeler rek euh, xëy na bu ñu loolu wax ci misaal moo mag bàyyi. bàyyi am na ñépp je pense am nañ ko mais titre foncier moo nekk si kaw tey jii état mun na soxla sa bàyyi nangu ko droit bi droit au bàyyi mun na ko nangu wala mu résilier ko mais boo xasee boo am titre foncier c'est définitif et inattaquable kenn mënu ci dara état sax xam na xam na bu baax balaa mu nangu si titre foncier dina la wax lu leer leer leer donc loolu ngeen am tey yàlla outil ñoo leen di ñaanal mu jëg leen aussi Euh, di ñaax aussi yeneen sénégalais yi yeneen keesuwaay nañu nañu déposé képp ku ci am permis d'occuper yàgg yi wala nga am bàyyi déposé boo déposé incha allahu rabbi ñun danañu def suñu kéemtulaay kattan ñu mën a inscrire ba nga am sa titre foncier donc euh, tey daal vraiment si tey une cérémonie symbolique moo tax ñu woo presse aussi vraiment ak pour que ñeneen ñëpp xam ci xam na ne tey titre foncier réalité la. boo déposé sa euh, sa permis d'occuper incha allahu rabi euh, tey jii mun nga am mun nga mun nga am sa euh, dans le cadre de la politique euh, foncière au niveau de la DGID au niveau de la direction générale des impôts et des domaines euh, je l'ai dit tantôt la 31 euh, du 15 juillet 2017 euh, euh, portant transformation à titre gratuit des permis d'occuper et autres titres similaires en titres fonciers. Voilà une nouvelle loi euh, qui a innové, une nouvelle loi de haute portée sociale qui a aujourd'hui permis à des Sénégalais, en tout cas de toutes les couches des Sénégalais démunis, de démocratiser un peu l'accès à la pleine propriété. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le lieu de féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a eu une vision, qui a eu un élan de solidarité à l'endroit des Sénégalais, des citoyens sénégalais, euh, en démocratisant effectivement la pleine propriété. La procédure, hein, la loi, elle est, elle est votée à l'Assemblée depuis 2017, comme je l'ai dit. Le décret est pris en 2018. Euh, pratiquement, Ce qu'on demande, c'est très simple. Hein. Euh, euh chaque peut-être euh, intéressé qui détient un titre de propriété, en l'occurrence un permis d'occuper, il va au cadastre, il se, délie, euh, il se procure là-bas ce qu'on appelle un excès de plan cadastral avec l'INICAT. Ensuite, après, la demande de transformation sans formalité préalable. Donc, le, le, en réalité, l'intéressé ne, ne, aucun franc Donc c'est une euh, c'est un service qui est rendu gratuitement à l'intéressé. Donc euh, nous quand on reçoit la demande de l'intéressé, on l'arrêté est déjà pris hein, par le ministre des Finances et du Budget. Nous on cite l'arrêté, on, on, on, envoie le dossier au niveau du CADAS qui fait le travail de morcellement. Aussitôt après, au niveau de la conservation foncière, on crée le titre et on le effectivement délivre on le, à l'intéressé. C'est vrai qu'à un, euh, les gens pensaient que détenir un titre foncier relevé de. C'est un peu de. Comment, comment dirais-je C'est des miracles. Les gens n'y croyaient pas, mais aujourd'hui, avec la loi de 2016, c'est une réalité. Bon, maintenant, c'est très simple. Hein. C'est une loi qui permet euh, d'accéder à la prime propriété, comme vous l'avez dit. Et la procédure, elle est simple. Nous, euh, quand vous déposez euh, votre demande au niveau des de, domaines, nous, d'abord, on, on, saisit directement la conservation foncière qui fait des travaux de morcellement. Aussitôt après, on, fait le, on crée le titre et voilà, la procédure est terminée. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, euh, tous les Sénégalais, en tout cas c'est un appel que je lance euh, au Tiersois, qui détiennent des titres de propriété, des permis d'occuper, de déposer au niveau, au niveau de nos services. Et voilà, je pense que l'instruction peut durer en tout cas maximum euh, deux à trois mois maximum. Aujourd'hui, quand même, les, toutes les conditions sont permises, et euh, sont, sont, sont, sont favorables pour niveau de nos Le reste maintenant, euh, évidemment, le travail de communication, c'est un travail extrêmement important. Aujourd'hui, euh, du point de vue fiscal, par exemple, il y a un programme extrêmement euh, ambitieux que les autorités ont lancé, c'est le programme YATAL. Euh, YATAL qui n'est rien d'autre que euh, l'élargissement de l'essai fiscal. On s'est rendu compte quand même que ceux qui cotisent en réalité, c'est un nombre infime par rapport aux, en tout cas aux opérateurs économiques. Je pense que le DG a donné l'exemple. sur 400 000 euh, unités économiques recensées par l'ANSD, ceux qui cotisent ne dépassent pas 80 000. C'est un problème. Nous, au niveau de Thiès, on essaie de faire quand même le, le recensement qui s'y est. à travers euh, le cadastre qui fait un peu les enquêtes cadastrales, à travers des recoupements euh, qu'on essaie de voir un peu partout pour essayer vraiment de considérablement d'élargir l'assiette fiscale. Je pense communication, il important. il est, il est de rigueur. On essaie, on essaie tous les jours quand même, euh, effectivement, d'informer le, les citoyens sur un peu le, la nécessité de payer l'impôt. Pour cas d'extension, c'est quand même... Euh, c est, c est, la procédure est en cours. Hein. La procédure est en cours. Comme vous le savez, Mbourkal Extension fait partie dans une forêt classée. Donc la forêt classée, seul le président de la République peut déclasser une forêt à travers un décret. Je pense qu'aujourd'hui, euh, le dossier est en cours d'instruction. Il est sur la bonne voie. Espérons que très prochainement, le décret sera disponible et que ce sera un mauvais souvenir. Vous attendez combien de milliards pour Oh, tu il y, a la Covid qui est, là, c'est extrêmement difficile. En tout cas, toutes les prévisions ont été, ont été perturbées, hein, il faut le dire, euh, par cette pandémie qui est mondiale, euh, qui, un peu, qui vient bousculer un peu nos, les prévisions budgétaires, il faut le dire. Mais quand même, on est là, on est en train de, faire, euh, de créer les voies et moyens avant la fin de l'année, de faire le maximum possible pour atteindre pour l'objectif euh, de 12 milliards euh, wax naa ko sànq lii ni euh, directeur général impôt et domaine sax moo fi waroon teew wax dëgg yàlla yàlla moo ko dogluwul dafa am benn empêchement bu dernière minute boo xamante ne moo ko teree ñëw fii loi bi dafa am loi bu innové loi bu am solo la loi de 2017 bu ñu voté assemblée président jëmmal ko jël décret en 2018 tey jii nii mun nañu wax c'est mun nañu wax ne l'accès au titre foncier en euh, à la pleine propriété c'est devenu une réalité président def ko démocratiser euh, te titre foncier bu njëkk ba boo ko mosaan dëgg xëy na sax doo ko gëm ndax ñi ko daan am sax peut-être euh, mooy wax dëgg yàlla ñu am moyens yi borom barke yi ñoo ko doon am mais tey jii je pense que amul Massamba amul Mademba ñu pense que tous les citoyens mun nañu am titre foncier à travers cette loi ku ko bugg a am boo amee sa permis d'occuper da ngay dem rek nga am euh, sa nikat am sa plan nga déposer c'est très simple boo déposer ñu ñu def euh, liggéey bi euh, carrosse démarre sur le terrain def morcellement bi ñu ñu créer titre foncier bi et puis doo fay dara parce que loolu mooy nouveauté bi dafa nekk action boo xamante ne à saluer ñoo ngi féliciter son excellence monsieur le président de la république koo xamante ne wax dëgg yàlla dafa jege population yi ndax li lii lii wane na ko lii moom dans le passé musul am donc euh, ñun nañu koy rafetlu bu baax a baax. ndax si service bi macha sa personnel bi moo doy wala dañoo xarañ si ñaari at daanaka ñu ni juróom-ñeenti téeméeru titre def ngeen ko joxe. waaw ñu loolu sant la sant en moins de deux ans créé nañu lu ëpp neuf cent titres loolu maa ngi c'est l'occasion de remercier de féliciter wax dëgg yàlla suñu agent yi ak suñu collaborateurs yi muy ñi nekk cadastre je pense que aussi euh, kenn demul ñu des ñoom ñooy dem sur terrain def travaux morcellement yi. bu ñu defee liggéey boobu ba pare ñu door indi conservation ñu créé titre bi je pense que ñëpp si jàpp rek ñëpp si jàpp ñu xam ne ne aussi euh, euh, développement dafa dafa dafa nekk loo xamante ne dañ ko war a jëmmal parce que euh, titre foncier boo ko amee tey mën nga dem ci banque yi nga am xaalis bu bëri liggéey donc opérateurs yi loolu la ñuy wër moo tax il faut ñu créer les conditions pour ñu faciliter effectivement Euh, l' acquisition de ce titre foncier là pour toutes les populations parce que loolu dafa am loo xamante ne lu am solo la. Mbourkat dafa nekk dossier boo xamante ne euh, wax dëgg yàlla ñoo ngi koy topp bu baax a baax dafa nekk en bonne voie je pense que liggéey bi au niveau régional def nañ ko au niveau local euh, commission régionale réunir ne ba envoyé dossier bi au niveau de au niveau de la hiérarchie euh, je pense que c' est une procédure qui en cours mu ngi am bon voie am naa yaakaar ne lu yàggul dara rek incha allah. Euh, président dina jël décret bi pour régler problème bi définitivement. waaw récidive wax dëgg yàlla euh, nekkoon nañ ci en bonne voie avant mars deux mille euh, deux mille vingt malheureusement Covid bi ñëw wax dëgg yàlla ñëw changé modifier considérablement les prévisions mais ñoo ngi ñoo ngi góorgóorlu quand même am nañu yaakaar xëy na d'ici fin d'année dinañ def le maximum quand même pour ñu mun a atteindre objectif de douze milliards. docteur Baba Camara. docteur vétérinaire. ah donc euh, ñu la doon laaj euh, yéen ñu bokk ngeen ci ñi tànn jox leen titre foncier. waaw ñu bëggoon laaj lan mooy seen impression. bon man sama impression en tant que docteur vétérinaire euh, récipiendaire je peux dire aujourd'hui ci titre foncier bi kontante euh, la kontante bu rëy la parce que effectivement titre foncier bi topp naa ci ay at demoon naa ba foog ne dootuma ko am alors tey titre foncier bi tey ni mel. ni mel ci man ni mel ci man mi ngi mel ni tey biñ ma jox suma diplôme docteur d'économie tey noonu la noonu la mel ci man mais seulement am na loo xam li aussi bëgg naa ko leeral euh, leeral bi mooy euh, ñuy wax yëpp effectivement remercier nañ le président de la République effectivement je pense que remerciement président de la République euh, remerciement yu la parce que man bi may déposé sama titre foncier euh, direction impôt et domaine boo leen ko fàttalee mas na fi organiser ay journée portes ouvertes il y a quelques quatre ou cinq des journées portes ouvertes comme par hasard biñ koy lancé la hasard a fait mu fekk ma dakaar seen direction fekk am na benn kay bi ma doon toppatoo ce qui fait ma jël fa ay documents yu am solo yoo xam ni. permettre nañ ma xam nan la seen direction di fonctionner comment on gère le foncier dans ce pays la bon après la déposer sama demande bon ma toog bu mu yàgg effectivement ba daaw euh, en soixante waaw soixante-dix-sept la le décret bi génn le président autorisé euh, ne Sénégalais yëpp ku am bàyyi wala ku am euh, kii permis d'occuper war nga mën a am titre foncier. fekk suma demande bu jëkk bi négligé woon naa ko mais après ma renouvelé waat ma renouvelé waat bi ma ko renouvelé léegi vraiment ça fait un un an ma toog ba keroog ci ajuma ji xaw ma ñu xoo ma ne ma non non benn équipe bu cadastre ñëw et puis dafa gaaw ah comme ni ko euh, receveur waxe vraiment dafa gaaw parce que foog naa semaine dernière vendredi ou ou euh, jeudi euh, ci suma cabinet parce que man actuellement je suis docteur vétérinaire j'ai ouvert un cabinet à à Thiès foofu aussi kër gi kër gi ma titré foofu laa ubbi suma cabinet ma toog bu mu yàgg sama collaborateur ñëw ne euh, am na ay benn équipe bu cadastre bu ñëw pour def ay ay prélèvement ci kër gi ñu ne pour affaire titre foncier ma ne mais c'est bien c'est très bien moi j'avais oublié même ce ce dossier là ma ñëw effectivement ils ont fait je vous dis qu'en moins d'une semaine en moins d'une semaine ils ont fait le travail ça vraiment exceptionnel kooku kontaan naa ci torop torop kooku mën naa man mën naa ko mën naa ko mën naa ko kii man naa ko sedde en moins d'une semaine lañ ñëw def le prélèvements et puis lorsque bi ma si ooyee euh, démb gawuma ko dama ne loolu gaaw na est-ce que ci muñu voilà donc vraiment kontaan naa ci affaire bi euh, encore une fois président li mu def lu rëy la et puis je pense que Sénégal yëpp war nañ ko rafetlu ma ne la suma titre foncier bi ñu ma jox tey mook suma diplôme bi ñu may remettre bi ma defee suma thèse docteur vétérinaire pratiquement bànneex ba ma amoon tey am naa ko tey am naa ko tey kontaan dama koy wax mu leer waaw loolu du du pour du pour politique du pour dara et c'est la réalité et je pense que aussi maa ngi ñaan aussi xam naa ne fa ma dëkk euh, suma mbokk suma morom yu bëri ñu ngi yore permis d'occuper mais amuñu information waaw jibi joxe na information mais je pense que information il faut mu jàll waaw il faut mu jàll parce que nit ñi boo waxee titre foncier effectivement titre foncier mais fa ñu ko tegoon mais effectivement titre foncier aussi dafa am solo d'après document yi ma gis titre foncier en fait tuutiwul tuutiwul kon nag ku ñu ko jox saa waay jox nañu lu rëy donc il faut remercier le président di ko ñaanal jàmm Euh, ak euh, vraiment di ko ñaanal encore mu jëm ci kanam parce que man pour man si sa politique sociale bi muy mënee pour que sénégalais bu nekk am euh, kii fu mu fu mu dëkk pour man sa rentre dans ce man man noonu laa ko gisee. am naa mbégte bu rëy a rëy ne la tiitre foncier bii mook bi ñu may remettre suma diplôme docteur vétérinaire tey mbégte bi ma amoon tey moom laa am a tey parce que xam naa valeur am tey itam moo tax effectivement. du ma du ma du ma tee du ma tey remercier monsieur le président de la république parce que ni mu gaawee maa ngi la semaine passée la équipe cadastre ñëw suma kër def def ay ay relevé ndaw sax bi mu defee relevé ma ne ko waa yéen affaire bi mu ne dans deux ou trois mois moins d'une semaine ñu oo ma ne ma pare na c'est comme ça hein c'est pas c'est pas du du du du kii du point dëgg la. da dama ko yàgg a bëgg kan. non pour le moment pour le moment d'abord d'abord titre foncier ku ne xam ne titre foncier d'abord day sécuriser d'abord fi nga dëkk parce que en fait man actuellement fi ma tollu tey maa ngi ubbi sama cabinet euh, maa ngi ci liggéey alhamdulilah rabbil alamin et puis tant que aussi maa ngi wér incha allah dina continuer di dinaa continuer liggéey ci cabinet bi aussi. am na une petite ferme aussi maa ngi def de la production avicole donc euh, je veux continuer à travailler pour le développement du du du du pour le développement euh, socio-économique du Sénégal tant que maa ngi wér en tant que docteur vétérinaire parce que en fait euh, tey gis naa ne en tant que vétérinaire privé santé animale am na ay problèmes yu rëy am na ay problèmes yu rëy rëy parce que dafa am ay. vétérinaire de la rue man noonu laa koy tuddee xam nga dinañ wax ne li ñu gën a xam mooy médicament de la rue mais en fait y a des y a des vétérinaires de la rue qui sillonnent le Sénégal mais di nax paysans yi et puis et di di def lu kenn xam du point du point de vue santé. bon donc man comme yàlla def na ma liggéey naa pendant 37 ans suma expérience boobu yëpp dans l' administration léegi je suis dans le dans le dans le privé je veux contribuer en tout cas. à corriger ce ce ce gab-là nit ñi gën leen a yee ñu xam ne par exemple sa animal bu mal bu bu feebaree da nga war a dem ci technicien mais waruloo dem ci koo xam ne kii day yenu saago saakam li mu bëgg mooy bu la romb nga jox ko sa mille francs mu amal na sax mu pikiral la ndox daal daal dem yoonam bu ko defee mu def mu def ay dégâts wala mu pikiral la pikir boo xam ne bi c'est un médicament de la rue boo xam ne bi baaxul. Euh, bëgg naa jéem a góorgóorlu. Euh, ñi am permis d'occuper yëpp nañ xam ne mën nañoo am titre foncier honnêtement mën nañ xam ne man dañ ko nañ ko gëm nañ ko gëm comme man tey ni ma ko amee mën nañ ko am dégg nga maa ngi ñaan aussi du pour pour def publicité mais suma cabinet mi ngi Mbour 2 gannaaw police parcelle ku dem mën na ma fa fekk donc li ñu su suma préoccupe li ñu dem en tout cas suñu rôle d'abord en tant que cadre de l'élevage mooy un rôle de conseil on conseille les éleveurs ku fa ñëw bëgg waxtaan ak man ci domaine élevage je suis disposé waxtaan ak yow bu ko defee lii la laaj lii la lii la lii la jaaxal ñu waxtaan ci bu ko defee ba trouver solution